su ma nee jàmmaaloo nag xel yi dem ci mbër yi waaye su ma nee jàmmaaloo mbokk yi xel yi dem ci ñi nga xamante nii ñooy dundu làmb waaye bu nee jàmmaaloo xel yi dem ci wasaare ndax mbokk yi ni ma koy waxee chaque jour rek yàgg nañ fee dalal ay mbër yàgg nañ fee dalal ay tey nag ñii ma fi dalal nii dalaloon naa leen fi ak ñeneen ndax bébé Elton dalaloon naa fi moom ak Kalso Washington mi toog dalaloon naa fi moom ak ki nga xamante nii mooy Kayta Kara waaye mbokk yi combat yooyu dafa mel ni ah promoteurs yi jotu ñoo def li nga xamante ni moom moo warloo ak mbër ba tax na ki nga xamante ni mooy petit petit production mbokk yi di xale boo xamante ni xale bu jara bàyyi xel la ndax bi mu bi mu ñëwaatee ba léegi euh, day fekk combat yi nga xamante ni amateur bëgg nañ ko fekk combat yi nga xamante ni day jëmale làmb kanam mu taxaw di ko doxal ba tax na gis nañ keroog taxaw na ki nga xamante ni mooy Siteu bu Ngor ak Caatu Rebeuss bi mu ko taxawlee keroog mbokk yi ñëpp kontaan nañ ndax dafa nekk affiche boo xamante ni ay xale yu yu làmb bàyyi xel la ay xale yoo xamante ne avenir u làmb la tey nag mu dikkati fii ci combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Bébé Elton ak ki nga xamante ni mooy Washintor ñoom ñaan nag sànq ba léegi ñoo ngi nekk di neexal ndax xam naa ne combat bi moom ah ragal naa ne bu bu bu petit am na nu muy demee sax yeneen promoteur yi jéem a jaay suuf waaye defe naa ne sécurisé na ko ñoo ngi ko nuyu bu baax a baax moom petit ma bàyyi ñaari mbër ñu nuyoo ñu wéelu waxtaan wi waas nuyu naa la. waaw man lay fay Ouzin di bëgg waa àdduna ñëpp di bëgg gaa yi fu teew yëpp. Mm. ak fu ma bàyyeekoo waa ñàccu keer Dakar Plateau bi yëpp maa leen di bëggee. rawatina ñàccukeer bu ma jugee falaa juddoo falaa yaroo di sant waa Thiès bu baax a baax a baax waa Fatick maa di sant di sant àdduna ñëpp bàyyi ma kenn di sant sama maam yi waaw lu ko dalee ci Adama ak Awa ba ci jëm yàlla tey jii di sant sama yaay bu baax a baax a baax sama pap lan ngay wax petit yow mi nga xamante ne nee da ngaa xiifoon ki nga xamante ni mooy Bébé Elton balaa bu nuyoo lan ngay wax petit promoteur bi nga xamante moo taxawal combat bi. waaw petit ma koy wax ndaw la parce que moom petit sama premier combat mbapat. Mm-hmm. moo ma njëkk a tëgg. waaw ba jëm yàlla tey ji waaw ma ma bëri ci man ak ma làmbaay ma daan ko maa daan ma làmbaay petit waaw jig na ma waaw sama premier combat terrain déggoo hmm. waaw boobu moom moo ko tëggoon ma doon booy bu ndaw presque boobu maa ngi jàng sax waaw mooy loolu man ak ma làmbaay ma bëri daan ba jëm yàlla tey làmbari dox ba mu ñëw tëggat mam euh, arène dama koy sant di ko gërëm waaw. te instant yi mu toll nii màgg nga. waaw yi moom lépp jàmm moom waaw sant nañ yàlla bu baax a baax a baax. ñu bàyyi bébé naa waaw Ouzin maa lay fay ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi maa sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Ateex ah di sant kilifa diini kilifa aada yi di sant sama gars yi petit promoteur amuñu fayam. parce que bi combat derby la àdduna ñëpp ko soxla di sant Bamba sama xarit sama doom day ah di sant waa Géejawaay ñëpp awma seen fay parce que waa Géejawaay maa fa mujjee euh, takk nekk mbër mais man lañ gën a yaakaar quoi heure bu ma jugee dan may jàppale topp sama ginnaaw jàppale ma sant waa Gunaas waa Parc sant andaw bu baax daf may jàppale di sant Muntaga Babi la yor mais barke Serigne Touba lu mu liggéey daf ma koy jàppale barke yàlla sant waa ñëpp sant Ahmed Aidara sama maire maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm daf may jàppale di sant Béy di ba ah di sant sama yaay booy di sant waa kër gi ñëpp di sant waa Géejawaay waaw ah, lan moo tax bëgg loolu yomb lan moo tax chaque jour ngay bëgg jël komba boo xamante ni coow li dafay bari lan moo tax ngay bëgg jël xale yoo xamante ni dañoo nekk ci yoon Bébé Elton. waaw man man làmb man làmb dafa fekk ma am coow man man rek laa. Mhm. macha allah avant may dugg ci làmb dama am coow. Mhm. kon euh, làmb mooy loolu man mënumaa am combat bu yomb bu ma am der bi lay kii nag topp na ma fu ne ci marché yi ci duus yi sax topp na ma fi. mais incha allah combat bi xoolal pëti li ma koy ñaan mooy date bi nag jege barki Serigne Touba moo wan ni ko mënul dara dama koy dóor mu daanu kii duma ma moom mu ma yeb dama koy dóor mu daanu barki sëñ Ousseynou Mbacké. mais mais lan nga yaakaar ne moom loolu doon toppee ndax fu ne mu topp la fa dëkk la fa man lay dégg sax nga naan sànq policiers yi jàpp nañ ko sax mu tàllal loxo di la dëkk. waaw parce que man dama bëgg mbër mu am classe quoi man dama am classe. di di ko lancer waale benn message. Mm-hmm. doon mbër teexut xam nga taxul nga nga ñàkk jom quoi amal fulla ci sa bopp am respect am sava vivre boo demee esaat ñëwal toog dagg sa billet xama da ngay ñëw toog xama nga dagg sa billet nga ñëw toog xama bañ a déranger kenn mais moom xamewul mbër xàmmewul jour ku ñëw mu dëkk la loolu maa ngi ko koy lancé pour mu bàyyi ko quoi ginnaaw jël nga avance su bébé Elton toogal jàppal fi nga jàpp liggéeyal liggéeyal ba foog ni tey ngay dee barki Serigne Touba incha allah ci kàttanu yàlla segond seconde mës am ci làmb ji incha allah bu at bi soufflé seconde dama koy daan seconde billaahi wallaahi taala. Bébé Elton yow lu man lu may def du yow yaa koy wax man lekk naa sa avance bu may tëkkan bu may dëkkante bu lu may def du yow yaa ma koy wax. non dama la man làmb la ma xamee. man tey dëkkante bu ñu ko bàyyoon ci làmb du ma bëree. non a yar eh. doo wax nu may nu ji moo gën xam nga làmb ji yow nga nga ci am. lii kase nga ci am force dama lay daan lamb ji lii kase nga ci am. barki sëñ Abdou Karim dama koy. daan ma yow gëmoo dara. yow doo dem Tivaouane doo dem Popenguine doo dem Touba gëmoo dara. doo dem fenn yow kenn xamul lay. yow lan nga ma nee la wuy ma man xaadar pire laa. Mm, waaw man waa kër Cheikh Mohamed man waa kër Cheikh Mohamed Kounta la combat fu ne nga bëgg faa bokk baax rek di wax wuy ma ma nee la. dama bëgg nga nekk nit. non yow bu may nekk nit yow yaa ma koy wax yow da fexe wax ci man ak yow noo may. Euh, aussi kii euh, kii nan xool li sol quoi xam duñ ko invité. mu war a sol lu lu rafet yow yow trois cent nga sol yow dégg naa trois cent nga sol yow. lii bu ko yàggee sol eh, eh, eh. patron yi nee na suñ lay may ñu may lu baax moo ñu lay may mètre trois cent yi. mètre trois cent yaa ñeme yàlla li onze mille cinq cent man maa la xaalis ma. da xat fu mu toll nii. barkaal da xat. barke Rosaay da ngaa xat. da xat yaa ngi nii man homme de base lu ma sol mu rafet barke Rasulullah da nga bàyyi sa tegle bi day tegle waaw yow. Euh, waa lan nga ñemee kii ba fu nekk fu mu la romb nga dëkk fa na kaañu bëri. noo kii man wëruma ko sax xëy na suñu borom moo moo moo dogal làmb ji wër wër wër ba xam nga làmb bul la day tourné. Mhm. xëy na suñu borom moo neewoon du ma bëri Keita Kara làmb ji tourné tourné tourné ñëw ba ci moom te moom bu nekkoon moom tamit moromam lay doon kii aw ma lu may sikki sàkk di moom wala di ko eh, xalaat. dama gis da nga commencé ñàkk xanaa barki Saaru Fara billaay walaay. baas bi mu a yàlla bu ko sumee woon. combat bi mu taxay ba léegi maa ngi liggéey lu metti. barki seen bi mu sol bu ko sumee di di fenn. ma xam ma fu ne di wax. kii gënumaa siiw man man avant man avant maa dugg ci làmb laa siiw man sama sama sama combat mu desee deux jours la sama licence soo génn CNG kon kii ma mënu ma wax ci làmb dara kii maa ko ëpp coow fuuf kii ñaari combat la bëre benn bi dañ koo kaaw ba làmbaay moo ko kaawoo benn bi moom ñàkk dañoo machine man ma bëre daan ñoo bokk fenn fu ñu toog ci mukaay jour journée iraal yi kii du dara. kon xamante ngeen ñaar waay barki Sarr boo ñoo bokkoon marché kii 2003 ba tey mu ngi bëre. ma doon booy bu ndaw 2003 ba tey daa mënta développé moo tax mu mel nii. 2003 ba tey kii du ma ko may dara. yow day heure bu may jàng ji bu may jàng ji di di ko romb barke Rasulilaay kii paa la du ma ko may dara arbitre bu sifflé dinaa la duma naa la daan bu neexee yàlla bu Belton. yow man du la ñemee musuma nga sa musiba. yow yow ñeme a dóor mbër mu daanu yow da ngaa mës a dóor mbër mu daanu. waaw da damay wax nga bay jéem waaxu man du nangu loolu amoo loo ma ëppalee yow sa mètre 300 bi yaa nii xat allum neen ñàkk tooy xeeb mënoo sa yëngatu nga ne ma ay dugari man booy bu ndaw laa man su may sëkkatee rek damay ñàkk dama dama am doole. nga naa ma nii. barke yonent bi kii amul doole. barke Roussa yow yaa amul doole soufflé. combat bi gën a gaaw ci année eh. bi ay dinawel ngay naan combat bi gën a gaaw ci année bi. barke bi mooy combat bi. ay dinawel ngay naan amoo doole ay dinawel ngay naan taxaw dama koy duma daan man waa Géejawaay ñoo ma yónni yaa xam ma. kenn yónniw la barke yonent yow yow Géejawaay doo nekkoo fa yaakaar. parce bari na ponk am ay huit combats neuf yow géejewaay doo fa see ñaari combat nga bëgg a doon yaakaar bi. waaw noo doonee yaakaar bi yow deux combat nga am ngay doon benn match nul benn victoire. waaw puso maa la ko tane yow mi Moussa Ndam. yaa yow premier combat dan laa ko deuxième combat bi ab basketteur lan la jox. deuxième combat basketteur lan la jox xoolal. yow basketteur bi muy ñëw ci làmb ji. wóor naa nee naa ko mais mu demee noonu mënu ma gis nga contact gu ma. saa eh. laa eh. yor sama eh. bal. doon basket damay ñëw bëre. Ousseyn yow nga daan basket la taxaw jariñu trois trois lay posé kii cent et quelques kilos lay posé ñàkk jariñu trois kilos lay posé. Bébé Elton puusul paasul. ponko bu toll nii man yow dina dina dinaa bëreeg yow loolu boo boo lu nga bëreeg ñàkk ko bëreeg man yow ñàkk nga xam ne trois kilos lay posé yow cent et quelques kilos. nga lan laa bëgg ngay jéem bu soufflé. barke alxuraanu karim combat bi gën a gaaw ci Sénégal moo nekk combat bi. barke maam Serapha. billaahi wallaahi taala. Eh, petit maa lay sant bu eh. baax yow mi tëgg combat bi. petit le jeune promoteur ñun dañoo yàgg a tëgg. dama koy sant bu baax di ko gërëm ndax. waaw yow combat bi am na ñu ko bëggoon ñu bëri. mu fay ñu bu bari mhm. kon ngir yàlla ak yonent bi amateur yi bu ñu jeppe waas. doo dégg yow loolu yow lañ koy wax. damaa bëgg yow yow yow machine. damaa bëgg yow yow yow kay loolu lañ koy wax. damaa bëgg yow miy jóge machine man ma bëre daan yow nga jóge machine. mais li ma bëgg a xam mooy li ma bëgg a xam waaw waaw non parce que man du ma ko may loolu. ñàkk moo demoon sóoraale kii combat bi jàll ñëpp ko àdduna ñëpp ko jéppi parce que làmmiñam bi moo rëy Bébé wër fu ne. ñëw ñëw puusu paa la moo tax kon nga soxla mais moom la moo tax mu may. dama la bëgg a wane <laughs> dama la bëgg a wane Bébé dama la bëgg a wane. yow mun kii daf ñu mën a ba mbooloo lu ñuy dugal instant mbooloo kenn dafa xam nu la toll ñun ay ay nit di ne ba Europe barke ñun dañoo war a lekk xaalisu làmb. jërëjëf maa sant Mbaye Diagne bu baax Mbaye Diagne laa. joueur international Mbaye Diagne joueur Sénégal. barki Seydina Mohamed Mbaye Diagne joueur international maa ngi koy sant bu baax. da may jàppale di sant sama boy bi Diao Baldé Keita. moo boole Mbaye Diagne. joueur Sénégal doom day loo fubalul baaxul combat bi damaa bëgg nga jàpp ci bu baax. barke yonent yow rek nga nekkee ci làmb ji. déggoo ñun waaye ñunu. waaw waa léegi waa léegi nan déglante mu neex. waaye yow damay déglu wala nga wax. non damay leeral ñun ñun woyaanuñu ñun lu ñu am ñoo ko amal suñu bopp ci làmb ji man boo wooyee Mbaye Diagne ma woo Ibrahima Thiam commerçant marché Petersen waaw di woo Lay Pulo di woo ñoom Yande Diop monsieur le maire Seydou Camara Jeylaani maa ngi woo autorité Dakar Plateau yëpp man ñooñu laa am. man andaw andaw laa am. Issa Rabi ñooñu laa am andaw Pam Mama Fall. waaw maa ngi koy sant bu baax. du dëgg Bébélton maa lay sant bu baax. Bébélton di la gërëm gis naa sa jàppale ci man. Bébélton yaa may jàppale. yaa may wóor na yàlla maa ngi sant Pa Mama di sant sama tooma Andaw. di sant sama tooma Elton. daf may jàppale bu baax barki yonent bi di ñaanal Balla Gaye de combat combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may. man di ñaanal Tabatine combat bu mu jëm yàlla na dóor Boy Niang mu oh, daan ci kàttanu yàlla Boy Niang 2. yow Tabatine daan ko jëlee bu leen. Ousseyn waaw nan dama lay daan far foos mais loolu def ci làmba yow lu ma def alxuraanu fan laa teg euh, dama koy daan. waaw foo ko teg xam nga fan laa ko teg. kii moo gën a neex a daan barki yonent bi billaahi wallaahi taala waas amul lu mu mën munul dara. moo gën a niil ci làmb ji. kii bu arbitre soufflé bu taxawee. dëggal boobu dama koy dóor mu daan bu bëree dama koy daan top 5 laa koy yóbbu. barki yonent bi man dama dama yàgg di la wax benn wax te gars yi bàyyi yi ñuy xel. man damaa bëri ci àll bi soo ko ñëw Ndakaaru. boo demee ñu daan la yow bëri ci àll bi soog a ñëw Ndakaaru loolu bañ a dem nga man dama ne woon su ma mënul am gabar sin wala king kong bu faas ma bëriwaat. man sama bët soq laa ko teg ak daan di faal man dama bëgg a sajur bu may bëree kor bi yaa taxaw sapeur taxaw xam ne da ngay pare ku ne xool foo jaar sama diggante kii loolu laay loolu loolu tànk pëdi bu andiwul kor bi yaa andiwul sapeur du ma bëre faaw ñoo ñu taxaw barki saaru fara billaay walaay talaay sandil corbia ak sapeur du ma bëre bébé ton parce que kii dinaa ba corbia moo ko jëlee ci làmb yóbbu ko dante kon kay kii bu bëggee léegi léegi bu ñu wàccee ci biti bu bañ a bëree xeex xeex ba combat bi jeex bu bëggee ñu bër barke alxuraan barke rasulilaay soo bëggee ñu teg lépp petit petit promoteur petit mi taxawal combat bi yow li ngay wax li ngay barke rasulilaay petit su andiwul corbia andiwul sapeur pompier du ma bëre dama ne eh doom day bideel li muy xeeñ moom diwoo ko moom mi ngi nii waas li muy xeeñ diwoo ko mu ngi nii. barki Sadou Fadal barki waas tàngul. naxa naxa la moo gën a neex daan. waaw moo dama lay daan daan sëñ dama lay daan. bokku nañu bés la la booleel ah? basketteur man bu doon kaña tamit dama koy sant yàlla parce boole nañ ko sama victoire mais yow puusoo paasoo amul loo def ci yàlla boo bële dañuy sant yàlla daanoo guma ñun heure bu ñu xëyee dañuy sant yàlla daanoo guma parce que lii mu taxawoon premier combat moo ko ko bëggoon daa bëri tous wax nga naan ma nii. yow yaa premier combat kii moo ko taxawal wàññi sa base bi base bi dama lay leeral doo yow mel na 300 nga sol yow. nga sol ma nii. barki man dara ëppoo ma doole. <laughs> bilaay walaay ëppoo ma doole. yow fooy jaar ba ma doole yow. xel kii lim la wax kanaara nga yor yow. Ah. yow binda kanaara nga yor. maa la ëpp doole. yaa boo ko waxee da ngay sóob laa wax. mënoo xeex fëree ñu doon may ñu tuuti may ñu tuuti ma dalal ki nga xamante ni mbokk yi moo waral coow li lépp ndax petit xale la boo xamante ni comme ni koy waxee chaque jour rek nga boo ne bokkee ci làmb xam li làmb laaj chaque jour da ngay fexee dox ci li mel mm-hmm. ma bàyyi petit mu nuyoo wax ak askan wi nuyu leen xamal ne combat bi Petit ko taxawal dugal ko ci combat bi nga xamante moo dox ci diggante Siteu bu Ngor ak Caatu Rebeuss Petit nuyu naa waaw Ousseyn maa lay fay ginnaaw loolu ma sant yàlla maa sant sama ñaari waat di sant Karim baax a baax a baax di sant ñëpp quoi waa axlu làmb lépp quoi di kontaan tamit ci ñaari mbir muy waa ak Bébé Elton. Mm-hmm. dinañ la ko xamal ne ñoom ay xel lañ quoi. Mm-hmm. mais làmb ji moom damaa jaral lu ne parce que mm-hmm. jaale waa Petersen ñëpp tamit damaa jóge ci dese nii sax xam waaw yàlla ko yàlla yam xare ko ajanal fil daw ma jóge dese boobu ñëw fi directement quoi parce que ñoom mënu maa ñàkk a fekkee seen bés parce que làmb ji am na amateur soxna na groupe WhatsApp yi ñëpp làmb ji la ñuy bi ba waaw parce que ñoom nekk nañ ci groupe whatsapp yi ñëpp naa ma waas bébé Elton. Mhm. parce boobu maa xool waas a keneen di xool bébé Elton ak keneen ma ne leen pourquoi pas ma boole leen. lamb ji ma ko woowee ñetti baat la wax mu ne ma lay garaawut ma woo waas moom mu ne ma baara tontu mhm. xeex ma ne leen xeex bi nag moom may dimbali ma xeex bi may ma ko boo. daa mënul dara ñaan ko wax. xam nga daa mënul dara. <laughs> kuy xeex. daa fekk mu mën dara. kii mënul dara mais mais lan ngay amateur yi ak ñi nga xamante ni ñoo dund làmb parce que defe naa ni euh, ñu bari namoon na la ñu bari dañ ma doon naa ma petit fu mu nekk petit fu mu nekk nga ñëw andil ñu li nga xamante nii macha allah lan ngay wax amateur ak yan combat la ñuy xaar yoo xamante ni des na yow taxawal. waaw lépp rek xam nga ñoo moom suñu di liggéey xam nga ñun ay ndaw lañ te xale bu nekkee xel dafa war liggéey parce liggéey ci la lépp xëj. Mm-hmm. boo képp ku ñëw Iba Mar xam ne diggante Siteu neex war a indi Washington ak Bébé Elton loolu rek grand combat la. Mhm. di ci teg ay xel yoo xam ne tey ñëpp ku ñëw ci làmb daal di nga kontaan ku jag sa biir lépp loo jënd biir di nga gis lu ko raw. parce que mhm. di gis aada ak cosaan ndaw rabim bi fii fecc fii. sabari fi moom xam naa ne combat yëpp ay àgg tarba mbay tarba mbay tarba mbay day ñëw. premium ci war a joué premium live waa ci wàllu wóy yi wóyal mbër du affaire yoo xam ne affaire yi làmb doon ko jëlee au sérieux te liggéey liggéey boo xam ne day jigi dayoon mhm. parce que làmb moo tollu foofu te ñuy tey ay ndaw ku na war a wone man dama ma tegee mbër ma wone loolu laay ñaan maa ngi waa Sénégal nan ñaanal euh, Petit Production parce que xale la barki Serigne Touba bi mu duggee ci làmb yàggul mais xale la mais day jël euh, dooleem ak alalam di ko def ci ñun bu ko neexoon yóbbu ko feneen maa ñaan yàlla xama yàlla na la yàlla dooleel ba li nga bëgg ci làmb ci yàlla may la ko barki Serigne Touba di wax waa àdduna ñëpp nan ma ñaanalal Petit kii mooy promoteur bu bees bi. king mu ngi nii man moom rek laa wax keneen waxuma keneen king laa ko tuddee. parce que moo fi def lu kenn deful. petit petit ñun maanaam amuñu lu ñuy wax ci moom parce que suñu premier combat moo ko taxawal ba jëm yàlla tey ñu dem bëri arène ñu bokk benn koñ mu yëkkati xaalisam di ma jox may reer ak lépp kon tey su demee ba tëggaat sama kombaa kii mënuñu koo fay dañ koy bàyyi ak suñu boroom mi yor fay suñu borom fay ko waaw di ko ñaanal nag di ko ñaanal bu baax a baax a baax. waaw sant gërëm rek sant sama PDG Omar Sow xamal laa mujj moom laa tudd muy diggante Cité bu Ngor ak Thiatou Rebeuss hmm. muy PDG borom Odis groupe international maa ngi sant gërëm bu baax tamit di sant waa Bawol waa Ngoy Aliou sama dëkk waa Bambey di sant waa Pro Lavage gépp xam nga waa Medina bi maa ngi sant ñëpp daal Galzo 94 Galzo 94 waaw gars yi tolu loolu sax laa bi dafa am tolu luy décembre ku bëgg oto boo ñëwee ma luyee la oto boo bëggee ma jaay la oto nga dem tamit amul benn problème di nuyu moo nay moo frère Galzo 94 depuis Touba amul borom yaa xalaate maa ngi koy béggee di ko sant di ko wax baax combat bi combat am la di woo sama benn gaan Aziz borom Colobane di woo ñëpp ñi nga xam ñoo jàppale petit production xam nga waa ASC bi yëpp ñoom Mara Pro ñoom Youssouf Fall sama gars yëpp maa di béggee leen sant di képp kuy jàppale petit production la ma limee dama juum di béggee sama doom day Modou Pouy xam ne sama ménage la jib seen Pogba waa Petersen alkayda bu Omar Gambe boobu ma kenn woo naa ñëpp bu ma limee juum gal falu Brésil maa ngi koy woo ci combat bu baax di woo aduna yëpp daal te xam ne asivr Ousseyn dañu waxtaanaat incha allah jaayef Ousseyn maa ngi sant bu baax sama mm-hmm. bu Gunaas nañu wax Njéeme Njéeme bu Gunaas maa ngi koy sant sama mère la daf may jàppale maman Njéeme sant bu baax di la gërëm yow sama yaay nga sama xarit waaw yow li nga xamante muy petit nekk xale yëg ti alalam def ko ci làmb ji bëggu làmb ji ñoom parce que nee na képp ku mu tëgg ku nekk bëgg na la wane bés bi lan nga laaj sa diggante kii. waaw bés bi maay ñaan yàlla euh, ñëpp jàppale petit parce que initiative bu rafet la def barki yonent bi man ku ma tëgg doo perte parce que mbëru dëkk bi laa. te làmb ji yëpp ay xale koy bëri. déggoo li ma la man man mbër làmb ji man lan jox bopp macha allah ku ma tëgg doo perte man. billaahi wallaahi taala naa ni ñun ñun promoteur ñun ñun waaw dama la déglu waaye mënoo wax wax bi yëpp da wax may wax ñun ñun ñun promoteur ñun promoteur ñun promoteur yi ñun xam nañ kuy Washintor bu baax a baax a baax amateur yi barki Sadou Fara heure bu ma duggee stade amateur yi dañuy dañuy kontaan parce que ñoom yooyu la ñu bëgg kuy ñëw yëngal stade te ñu yaa suturaal nañu bu ñu ñëwee stade dañuy wane suñu bopp ba jeex tàkk man promoteur mosuma tëgg di ma woo fenn wala di ma dugal nii parce que promoteur bu ñun ay xale ñun ay xale rek la ñuy àndal lu ñu ñaan suñu borom suñu borom may ñu ko mu suñu ànd ak mbër muy jéem a lii promoteur bu ñu tëgg di nga kontaan am a kontaan ba bëgg a dee yow da ngaa mën a wax wax bi yëpp Ouzin xam nga buru bara. waaw xam nga buru bara. bu baax xam nga buru bara est-ce bu baax luy buru bara. waxoo ko maa ngi eh, waaw mooy kii nag moom mooy buru bara barki Seydina Mohamed buru bara mooy mango yu yàqu affaire yi firi yu yàqu yow yaay moom. lan moo gën a nooy ci lu am yow loo ma ëppalee yow naajo jugal fële def fii lu ma deful nawe ngi nii ak naajo li gën a yow buru bara nga buru bara li gën a nooy yow buru bara nga li ma bëgg a mooy li ma bëgg a xam mooy naka ngeen a waajalee bés bi mm, ah. ci wàllu entraînement préparation Ouzin combat bi na dem li par six séances laa ci def six kii du ma ko may dara barke Rasulaay damay dem gradin dem dem géej trois fois jour bi. ba pare dem ko xam musuma liggéey maçon mais combat bi dina ma liggéey maçon pour loxo yi gën kii du ma ko may dara kii combat bi dama teg sama bakkan ba doo tooy wala non yàlla suñu borom CNG teel koo yeewu mu parce que kii man maa dama ko kii kii dama ko xiif fu mu toll nii moom rek laay gis kii dina tax ma jaay sama yére jaay samay dàll jaay lu ma yor yëpp pour dànk moom Ouzin waaw yow waas na liggéey bu baax. yow yaa a liggéey yow daan bébé Elton yow ay ay koy daan bébé lenn laa lenn laa la bëgg a xamal Ouzin. waaw yow barke bëgg naa combat bi te fonk naa ko te du ma café bis te du ma ko caaxaanee. ñun mosuñu café bis bay boo nga waaj bu baax. yaa say bokk barke yonent bi billaahi wallaahi taala Ouzin. kii bu yow boo taxawee. kii waaw nan dégloon te mu ne bool bool yi kii bu taxawee mu ne. yow boo waaw lamb ji bu ñu tëggoon sa biir néeg dama lay daan. far foofu Bébélton mënoo maa daan. yow xam-xam bu ma daan nga eh, amul mosoo fee doon mu daanu mosoo fee kaaw arbitre bu soufflé dëggal la sa bopp dama bëgg nga dëggal sa bopp yow buru nga yaa gën a nëb ci lamb ji bu xam nga buru mooy mooy pompiteer yi yàqu yi pataas loolu mooy buru te yow moom nga sama combat premier combat ba lu ma waxoon adversaire nawe moo gën moo jaxasoo buru bara moo gën a jaxasoo dama lay duma dama lay daan bu albi soufflé boo ah, boo taxee ba yonent bi di yow ay yow ay dinawel ngay julli baaxul bul yow ay dinawel ngay bul jug toogal toogal yow nu nga du entraînement xam nañ lépp nu mu demee barki yonent bi amoo doole amoo xam-xam waaye liggéeyoo dara da nga wër ci marché di ñaanaatu nga ne da man booy bu doole bis boo ma jëlee tomba bi dama lay mbot ba nga xam tomba bi yow parce que man sa jur maay géej. man bëgg naa combat bopp yow. te déggoo li ma la. combat bi yaa ma laaj Sadou Fara billaay walaay. li li ma dëkkee ba ñeme ma. yow yaa ma ma jaay samay yére jaay samay dàll jaay samay tubay bari ko rusaay ngir daan ko bii toon moom. combat bii nii. loolu du ma saam jaay samay yére. loolu du ma saam samay dàll pour man doo dégg Dakar Plateau. damaa mën lamb Dakar bu soufflé rek. waaw yow mënoo lamb boo mënoo lamb nga ngoon combat bi waay waa déglu yow doo dara yow bokk na cumukaay bébé Elton six heures ci ngoon mu dongali ñëw esat waa soto ko soome barki yàlla góor du eh, taxaw sama kanam góor waa suñu tur bu diwoo doomu taal bi man duma dama lay daan taxaw ma sax Franc laa teg sama bët ak soq Ndandi Fall barke yonent bi kii dafa ñëw sama yow boo bëggee mun naa la may wër nomb barke soo bëggee ma ne yow ma may la wër nomb sa a a eh, ma nee sama gars damay bëri Bébé ñu ne ma kooku mbëru tiktokeur la ak forme forme kanaaram bi suy suy dox nii lay doxee nii. mais man maa la wax yow dugal fële yow loolu. fexe maa daan yow ñaari combat nga bëri. fexe maa daan dama lay daan bu yow daanu nga daanu nga taman daanu dinaa la dóor ba nga tëral sa bopp léegi yow yaa tax ma liggéey maçon yow yaa tax ma liggéey maçon yow yaa tax ma liggéey maçon pour daan la kon de di nga gaañu balaa combat bee ñëw da ngay gaañu barki yow may dara man maa la ëpp jàppale Mbaye Diagne international Mbaye Diagne international moo nekk zone Sénégal moo nekk sama ginnaaw ah ak Maysa sant yàlla buti ah ak ak Ndongo Colobane Ndongo Colobane moo nekk sama ginnaaw ak Maysa sant Bewelton Bewelton waas ñoo ngi may signaler ne temps bi jeex na tàggatool ñu jaaree fa tëjaale waa maa ngi nuyu waa géej waay ñëpp xama di leen sant di leen woo ci combat bi nag gis nga waa ji dafa bëri wax alwaxaala naan ñëw toog. yaa ma gën a bëri wax fuuf. waaw yaa gën a rëy làmmiñ du ma la may dara da nga ma bëgg a waxu te du ma la ko may. <laughs> waaw ba léegi yaa ngi bëre. combat bi yow pour baranga doo dara. combat bi maa ngi ciy woo Maysa sant yàlla boutique. di di ci woo Ndongo Kolobaan di ci woo képp kuy jàppale. bébé Elton maa lay woo ci combat bi ah di sant andaw bu baax daf may jàppale andaw maa lay woo ci combat bi Pam Mama maa lay woo ci combat bi ah. coach Lamine Faye maa lay sant bu baax di la gërëm ah. di sant Elton sama tooma ah. bàyyiwu ma benn yoon daf may jàppale ah di sant waa géejawaay ñëpp di leen woo ci combat bi barki yonent bi billaahi wallaahi taala barki Serigne Abdou Karim Wassintor bu taxawee arbitre soufflé mu taxaw seconde ma daan ko seconde barki Serigne Abdou Karim seconde musu lu musa am laay indi fii Bébé Elton yow ñu seetaan lañ. mën a bëre pire mën a xeex. waay yaa ñeme yàlla waay yow barki ma bëre moom. waay yaa ñeme yàlla waay yow nga jógee machine man ma bëre daan ñoo bokk fenn fu ñu teg ci nga ma ma bëre bébé sabu daan ko nga bëre nga bëre ñàkk jariñu machine yow xamante ne ñi ñoo ñu xamul dama ne. te Ouzin am na loo xam ne si xoolal xoolal xoolal xoolal lii ba baas bi mu sol baas bi mu sol. ne tàllal kilim bi de baas bi mu sol. xoolal sëlër bi sëlër bi mooy génn ci kaw. man doo dégg man barke yooyu ci dibe yi xeeñ de. man yaa ngi ñor de. damay woo ñor de. amateur la non ñor xoolal lii lii lii lii yow. lii faaw ma wax ëppale parce que lii du yoon non lii du yoon baas bii mu sol baas bii xooloo xooloo xooloo baas bii mu sol lii dinaa ko wax ëppale eh. parce que baas bii du eh. yoon am na loo xam ne yenn sol yoo xam waroo ko sol. lii du da ngaa tiit barkaal da ngaa tiit yow bu ma demee barkaal da ngaa tiit barke yàlla mën naa tiit ci keneen ko ba mu des bilaay da ngaa tiit non dafa tiit barkaal da ngaa tiit yow man nu may ñàkkee moo la moo la ragal lool te waxuma lool te waxuma lool doom day doom day lu lu lu kenn xamul ci waas maa ko xam. ñaari bëñ yi daa wekkee ko. da doon dëkkante ñu dóor ko kuul na dindi na poose la ñaari bëñ yi ci kaw poose la. poose la poose la poose la booy bu poose la yaa ñeme yàlla yow Bébé Elton yow yaa gën a nëb ci làmba ji yow def yow ñaari combat nga bëre. yow boo taxee nga ne man man man cuune laa. boo jàppee ni wax kese wax kese moo. sant yàlla julli jonne bi nag di sant di sant waa Dakar Plateau. maa ngi sant Guy gi daf may jàppale. <laughs> Cheikh mbay Guy gi maa ngi koy sant bu baax nee na ma combat bi combat am la. nee na ma xoolal combat bi combat am la moom moo ko jëlal boppam waaw. bàyyi ko mu tàggatoo. waaw yow ngay ñëw signature bi sol ay carax xoolal carax yi xoolal carax yi waaw xoolal carax yi nga sol mais xoolal carax yi nga sol ba Belton yow doo rus quoi yow da ngay sol ay carax yi mën na jënd sa mais carax mais daal lii moo moo ko da nga koo àbb lii moo moo ko da nga koo àbb lii moo moo ko da nga koo àbb lii yow moo moo ko da nga koo àbb lii la sol lii mais lii moo moo ko da nga koo àbb carax la sol carax daal lii da laa doo rus quoi yow moo moo ko da nga koo àbb da nga sumi sa baas bi yaa ngi ñoom yaa ngi ñoom tàggatoo waaw maa ngi sant waa Dakar Plateau di sant waa Dakar Plateau bu baax a baax a baax maa ngi sant Ibra Thiam sama patron. maa ngi sant Ndongo Massé Dior waaw dooma ñeex Massé Dior maa ngi koy sant bu baax daf may jàppale. daf du ma la may. parce que mayoo ma fii amul lu ñu fay maye. <laughs> booy na réglé ah waaye. muy <laughs> ma may sant Lamine Golo ah, di sant Lomfor duubul maa ngi koy sant bu baax. ah di sant John Kara. di sant waa école de lutte Balla Gaye maa leen di sant bu baax. andaw combat bi sa combat waaw góor gi si maa ngi koy sant bu baax démb la ma woo téléphone. moo tax kenn du la jàppal tojoo fenn moo tax kenn du la jàppal. waaw sant waa Dakar Plateau maa sant waa Dakar Plateau. gi nit dafa am looy ruus Bébéton warul ñëw signature sol mètre 300 sol ay caraxu téeméer li dafa ñaaw quoi warul sol caraxu téeméer yam yi nañu waxee dëgg mais non mais. waaw ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal continuer waaw waa di di sant waa Dakar palaatoo man man Dakar Plateau laa dëkk fa laa yeewoo rawatina ñàccukeer laa juddoo ñàccukeer di woo di woo waa ñàccukeer bu baax sama gaay yi sama gaay yi ñoom Aba ñoom Duudu ñoom Espec bi ma àndal di sant ñoom gaay yëpp di sant Ibra Thiam sama patron day sonn samay combat di sant Abdoulaye Niang day sonn samay combat di sant Yande Diop day sonn samay combat monsieur le maire Seydou Camara ak jabaram mbëggee ñaar ñooñ dañuy sonn ci man Jeylaani maa ngi koy sant waaw di sant Jeylaani Jeylaani Gaye politicien di sant sama waa koñ bu baax a baax a baax waa ñaacu geer bàyyi ma kenn di sant waa waa marché asalem ma képp kuy ne ma fiyaa yokkal ma jaay la maa neex marché Dior maa lay sant bu baax di la gërëm di sant ndongo ma moo xool ko kii da daa kii yow mënoo sax wàcc waat waat. man da ngay. waaw man ngay waxal wuy ma man ngay waxal. amoo doole mënoo dara. sama kay toog waas kay toog waas. waas waas kay toog ma tàggatoo di tëj. woo woo. bilaay da ngaa tibb. est-ce que man booy bu ndaw laa ba may tiit yow yow mënoo bëre mënoo xeex da ngay gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo bu baax a baax di ko wax ne combat bi neex na di ko wax nag yeneen yeneen yeneen affiche yi ñoo ngi koy wax ne ni lay demee ci jàmmaarloo. combat bi maa ngi koy ñaan Petit na ko tuddee Aziz Ndiaye drapeau bi. loolu nga bëgg. Aziz Ndiaye demal tuddee ko Aziz Ndiaye dina ci jàpp bu baax man maa la ko wax demal proposer ko lii barki Serigne Touba dina dina dina nangu lool te dina la jàppale gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo di jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci wasaare làmb jaa ngeen jëf mbokk yi bés biñ doon xaar agsi na dimanche décembre ca arène nationale càppaacoli bi doomu pikin Boy Niang numéro bara jàkkaarloo ak le géant di Bawol Tapha boroom takk ci rib lamb ji nag dawul ci benn télé en direct lay doon pay per ci seen affiche point com